alhaaji fàddilu mooy sun mbégte fiig fanu jëm moo ëmb sun sànqalus biir tey sangub jamono waa kay mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xamaan nañ mbégte ak kontante fas yéene teewaat fii ci seen studio bu mag bi di Waar wi TV ci seen émission bi nga xamante si moom ngeen baaxoo ànd ak ñun muy jotaayu xasida yi bokk yi jotaayu xasida yi ñu jiit dalal mboolem ñi nga xamante si ñooy yëngu ci xasida yi wala ñi nga xamante si ne ñooy yëngu ci wàllu si si ak ñu mel noonu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek jataay bi jëmb la waaye balay boobu rek ñuy nuyu di jaare bu baax a baax sahibul fadila sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général di murit di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi tam ànd ko wér waaye di nuyu di jaare bu baax a baax ki nga xamante si rek mooy sëriñ Bachir Abdou Xaadir mi nga xam ni moo yor kàddu yoonu murit di ñaan yàlla yàggal ko suñ kanam tam ànd ko wér mbokk di siyaare bu baax a baax sëriñ am di muudu benn faal mi nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fallou Karim di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ko wér ci barke Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di dem ba dëkk bu sell bala di daaru mooti di siyaare bu baax a baax ki nga xamante si rek mooy sëriñ Bachir Anta Niang mi nga xam ne moom lañ fiy xoolee maam seer Thierno Birahim daamal daaru mooti di ñaan yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ko wér waaye di nuy di jaare bu baax a baax sëriñ Bachir Abdou Khoudous bi nga xam ne mooy rek kàddu njabootu borom daaru moxti di ko jaare bu baax a baax te di ko ñaanal di nuyu suñu xarit ba suñu soppe ba sëriñ Xaalit Mbàkke moom borom daaru moxti nee naa ko dundal ca wér yàlla na fi yàgg tànd ko wér ci barke Cheikh na Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di nuyu le chef de village daaru moxti sëriñ Cheikh Assou Faye di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi waaye di nuyu baax a baax soxna Mariama Kunta moom Cheikh Mamadou Fadal foofu la ci diwaan Daaru Muxti di ko ñaana bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi lool te man ak wér waaye ni nuyu di jaare suñu bunt ci sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Abdou Xaadir Jili ibnu sëriñ Modou Moustapha Fàllilu di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te man weer ci barke Cheikh na Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul ci kàddu gi seen mbokkum taalibe ci am waaye tey jii ñu fas yéene dalal ki nga xamante ne si rek yaakaar naa kenn dootu ko présenté ti ci yoonu murit waa àdduna bi kenn dootu ko présenté ti ci àdduna bi yëpp rawatina nag fii nga xamante si mooy yoonu murit waaye rawatina fii nga xam ne moo di mooy sëriñ Fallou Touré ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi loolu tamante ku wér sëriñ Fallou Touré nekk jànkatu xasida macha allah ñu koy nuyu di ko jaare bu baax a baax ci di ko ñaanal di sàkku ci moom ñaan di ko wax dalal jàmm ci Waarwi TV euh, sëñ Fallou Touré ginnaaw buñ la nuyoo jaar la di la jaajëfal bu baax a baax yaa ngi ci sit bu mag bi di Waarwi TV ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax dalal jàmm. aouzu billahi bismillahi inna waliyallah يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي القربة وقولي اسمعي سمها قبول wóor yéen xaraj maa yi barke borom Touba mbokk yi jàkkaarloo nun ci Waarwi TV noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu baax di tàmbalee nuyoo bi ak ziyaar bi ci xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba naal yi nga xam ne naalal na ko borom tuba yépp mu matal ko naalal yeneen sottal ko yéene yi murid yi am ci moom itam mat barke borom tuba di nuyu itam sunu sëriñu bopp sunu kilifa sunu lépp Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Amadou Fadal di ko ñaanal moo ko way juram bu baax woowi sunu boroom gën a guddal seen fan ba li nu yéenee liggéeyal sëriñ bi ñu matal ko nañu ko bëggee ci barkeb borom tuba ci barkeb xasida di jàkkaarloo nuyu mbooleem ñi jàkkaarloo ñun ci waar wi mm-hmm. mag ak ndaw góor ak jigéen bàyyi mm-hmm. bàyyiwuñu kenn waaye di nuyu personnelu waar wi TV mm-hmm. bu ñu tegee nuyoo bi ci sa loxo yow Serigne Jenne nga jottalil ñu ko ci mbooleem personnel bi yëpp waaye di nuyu itam PDG Serigne Bachirou la ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi fi yëngatoo ñëpp jërë ngeen jëf. Hmm. ok euh, jërëjëf euh, Serigne Fallou Touré ci nuyoo bu am solo boobu jot na jotal na macha allah ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di fàttali rek yéen a ngi ànd ak site waar wi TV technique ba ngeen koy gis ni mu leen neexal Serigne Bassirou Sylla ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax di nuy mboolem techniciens yi nga xam ne jamono ji ñu ngi wéy di ànd ak ñun waaye di nuyu bu baax a baax mboolem soppe yi auditeurs yi nga xam ne euh, jamono ji ñu ngi ko kal ci site bu mag bi di waar wi TV bu ñu demee ba ca kanam tuuti di ngeen mën a ànd ak ñun ci Euh, téléphone bi jaar ci 78 710 38 22 78 710 38 22 ca kanam tuuti lay doon incha allah euh, sëñ Fallou ginnaaw nuyoo yeeg ziar yi dañuy wax ni saxaar bu jubeeb gaar day yëngu ba ñu xam ne yegsi ay bayti xasaayit rek bu ko defee ñu ubbi jotaay bi incha allah. inni aqulu wala yamilu لمن يصول مع الجراء إني أقول ولا يميل لمن يصول مع الجراء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم ودور يعصم وسن وعائي على الرسول باب الوصول لنيل سول أحمر عائي صل دواما وزد سلاما واشكر قلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلد سعاده لي باعتنائي قني اعتداء زدني اهتداء زدني اقتداء بلا عناء سف اختفائي بلا جفائي طيب عشائي طيب غدائي يا ذا الوجود كلي بجودي واجعل وجودي فوق الأداء هب لي ودادا قد لي المرادا يا من أفاد بلا كراء هب لي برورا قني الغرورا عبدا سرورا لكل راء واشكر قلامي واحمد كلامي bila malaami wala mtiraai saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraa'i zahzahta dayra lii xud tamayra faltakfi jawra lii man yuraa'i anqid ayaali min addalaali wa bilhalaali xallid faraa'i xini citaaba quduli lkitaaba waqbal mataaba yaa da shtiraa'i yaa xayra rabbi xayra murabbi tayyabta qalbi bacda ijtidaa'i salli wa sallim ala almutammim wa kulli yaasim bila intihaa'i allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammad wa alihi wa sahbihi wa farrahu bi hadihi almanzuma fi kulli waqtin wa xiinin abada amin wa hab lil azimiha ridaka al akbar fi kulli harfin minha wa hab li kulli man yaqra'uha saadat addaarayni amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin macha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ fàllu Touré ci njàng mu am solo moom mu nga xamante si rek moo di mawaay bu naafeex di ñaan ci barke mawaay bu yàlla defal nu ci ay tawfeex faj suñuy aajo ci barke Cheikh na Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul di nuyu mboolem auditeurs yi nga xamante si rek jamono ji ñu ngi wéy di ànd ak ñun ci site bu mag bi di waar wi TV eh, sëriñ Fallou ture ñu bari ñu ngi dégg sëriñ fàllu ture waaye xamuñu mooy kan eh, ci tënk boo nu bëgg na xamal kan mooy sëriñ Fallou Touré tey loo koy wax ki nga xam ne xamu ko. waaw kay jërëjëf sëriñ Jenne. Mm-hmm. waaw Serigne Fallou Touré de. Mm-hmm. njaamu si yàlla la di. muritu borom Touba. Mm-hmm. cosaanoo itam ci sëriñ Gumba Touré mi ñëpp miin ci keppaaruk sëriñ bi. macha waaye itam cosaanoo ci sëriñ Abdul Karim Touré mi ñëpp miinoon ci keppaaruk sëriñ bi. nu feeñe fii ci tuuba jànge fii ci Touba. li nu xam ak li nu man lépp ñu defe ko fii ci biir Touba waaye itam sëriñ Xaadim ture nekkoon kenn ci magi xasida yi itam di suñu wayjur mm-hmm. yaakaar naa ni waana kuy yëngu ci xasida ci biir Touba ak ci réew mi yëpp sax te mm-hmm. xamoo Serigne Khadim Touré. macha allah ngir ak bëggam xasida mm-hmm. ci tënk daal kooku mooy Serigne mm-hmm. Fallou Touré. macha allah Serigne Khadim Touré eh, nekk sa waajur kon mën nañ ni maanaam li nga xam ne moo de xasida yi moom suñu borom dogal na yow da nga koo donn maanaam piraatu waaye loo dond la. Eh, tey ñu bëggoon a xam tey ki nga xamante ni si suñu borom dogal na nga xam ne ndaw ñi waaxu nañu wuti li nga xam ne moo de xasida yow en tant que Serigne Fallou tey bu fekkoon am na loo leen di conseillé ci wàllu xasida yi loo leen di wax Mm-hmm. waaw kay jërëjëf sëñ Diéne mm-hmm. uh, xam na mm-hmm. fuy naqaree waxe lay doon ndax xëy na ñu ci bari booy wax ak ñoom ci wet googu uh, fa ngay waxe mën nañ fa bañ a dégge waaye conseil bi rek mooy ñu xam ne li nu am daf noo jomb maanaam bu du toon ak uh, yërmande yàlla bu du toon ak mbaaxuk borom Tuuba ñun duñu am tawféexi jot ci xasida yi eh, di ko durus waxuma la ak di ko yëkkati mm-hmm, mm-hmm. kon ku ci nekk mm-hmm. eh, conseil bi rek mooy nga jàpp ko te xam li nga am ndax damay wax ne mbir lu mu rëy rëy bu ko nit ki amee te xamu ko mu ñàkkoon ko te xam ko sax daf koy gën tey bu ñu danaa koy faral di misaal bu ñu ne woon ndimali tey moo gën a seer ci marché bi nit ki dem jëndi ko sol ko ba noppi dem ci sunu mbalit toog maanaam moom moo xamut li mu sol li mu toll ci dëkk bi waaye tiw nag lam sol moom di lim di di gën a seer ci dëkk bi di lim sol li ma jubloo wax mooy mm-hmm. ki nekk ci xasida yi mm-hmm. bu ko xamee ak bu ko xamut mm-hmm. euh, moo yor loo xam ne kenn xamul lu mu doon ndax boroom dafa wax ne ak tubu naaqilan min allahi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin mhm. maanaam li may bind maa ngi koy toxale ca lawxul mahfuz di ko bind baydu siiw kitaabati faaqat shuyuxa tarbiya wa kulla xayrin wa shuyuxa tarxiya sama xasida uh, yi fawqana sëriñub tarbiya fawqana sëriñub tarxiya mhm. lu mel noon nag bu ci nit ki nekkee mhm. boroom wax ne karaamati xattu yaddi sama tedd nga mooy sama mbindum loxo yow nga am tawféexi nekk ci conseil bi mooy loo sell doyul mhm. loo yaru doyul mhm. waaye itam loo doylu doyut mhm. ndax sëriñ bi dafa daan wax ne mënumaa ànd ak ku ñaaw njort waaye itam mënumaa ànd ak ku yàkkamti inchallah nëbbatukum ala kaddin bada lii xabla an ala ridan mu abada maa ngi leen di yee ci daj naa coono yu metti njëkk may am li ma am kon mënoo jug dugg ci bëgg lépp daal di jag faaw da ngay doylu waaye itam nag nga xam ne li nga yor boo ko jàppee te yàlla rek tax mën nga cee amee lu nekk ndax lu lu faw xa sëriñub tarbiya faw xa sëriñub ya sëriñ bi ci boppam wax ne yaa jaa'ilan xattiya fawqa danni wa danni gayri ya adimal man ni yow suñ borom yaa def xasida yi man ci sama bopp dafa kawe sama njort ak njortul ku man lak shakuriya ala alxurufi aljaalibati albirri walmaarufi mhm. yow sama borom maa ngi lay sant ci sama xasida yi nga xam ne day baaxal nit mhm. te yaakaar naa àddina kenn ku nekk baax nga bëgg lu mel noon na ku am tawféexi jot ci mhm. euh, boo ko jàppee te ngoy ci loo bëgg ci àddina di nga ko am waaye bis pénc itam boo fa demee loo bëgg di ko am mhm. ndax euh, yiw àddina wi nga ci gis nii li muy yaatu yaatu wu ëllëg ko ëpp ndax ko sëriñ bi deful dara ngir àddina mhm. waaye itam nag bu la baas di booleeg téere mhm. faw nga tërbiye ko xasida dañ koy tërbiyewu waaw da ngay nangoo wéet di sell di ko durus muy metti nga koy durus muy taw nga koy durus bu yàggee jëmmi xasida gi dina def ci yow loo xamante ni boo taqoo woon ak sëriñub tërbiya sax mënu ko def ci yow mhm. bu ko defee su boobaa nag kenn duutu jaxasoog yow di la xeeb ci lenn mhm. bu ëllëgee itam mooy tax lépp looy yóotoo ko mébét nga mën koo am ni nga ko bëggee te doo ci ñaaw mhm. macha allah jërëjëf sëñ Fallou Touré macha allah loolu am na solo di jaajëfal bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante si rek ñu ngi ci site bu euh, yi ngeen ànd ak ñun incha allah rabbi mu euh, am solo nga wax ci lu am xasida yi maanaam ku yàkkamti bokkoo ci ko ci gàttal beneen bi ci des mooy maanaam xasida da nga koy tarbiyewu bala moom muy ñëw ci yow d'abord tarbiyewu bi mooy ngay wéet chaque fois di ko durus nga xaay ni dana metti lool mennum yow kese nga toog di ko durus waaw waaye nit ñi jamono ji mel na ni jànkat yi xaw nañoo yàkkamti ndax bu ne bërët rek la ñuy daal di gis rek mooy dem ci baas yi euh, toj nan baas sàngam na fa ni yooyu noonu euh, tey ji ñu bëggoon na xam en tant que xale yi euh, ci li nga xam ne mooy si wàllu daara ji sëñ Fallou ndax jot ngaa jaar ci daara ji ak bi nga jaaree yàgg nga ci ci wàllu daara ji yu mel noonu. waaw jaar nañ ci ni ko Euh, doomi Touba yëpp di defee jaar nañ ci daara ji mhm. ba matal fa bi ñu fa jógee jaar nañ ci njàngum majalis mi euh, ba matal fa mhm. bi ñu ci jógee nag ci lañ door a soobu dëgg dëgg dëgg ci liggéeyu xasida yi ndax mën nañoo xam dëgg dëgg yi euh, xasida yi jamono yi ngi ciy soobu ndax mën nañoo jàpp dat bi wala yaa gën a am waaw xam naa ni ni ni mu feeñee rek ci mhm. tàmbali wi ah. mooy dama cee juddu waaw ndax daanaa dajeek kenn ci mag ñi ci biir dëkk bi mhm. mu ne ma yow sam sa sa sam tudd bokk naa ci ña fa doon jàng macha allah mhm. la meloon mhm. lu mas a xew ca kër ga rek xasida lañ koy gungee man miit am naa tawfeex jooju yàlla dogal na tam fekkante naa feek na ma sa bisub tudd bokk naa ci ña fa doon jàng macha allah kon dañ cee judd ba it ba noppi itam sunu wéyjur am lum taxawaloon ca biir kër ga lu ñuy tudde répété répétition nga xam ne booba ñi bëgg a mën a jàng te mënuñoo jàng dañ fa daan jàng si am njàng hmm. maanaam bëri waa na tey kuy toog ci baas di jàng hmm. nit ñi di ko bàyyi xel foofu ci ëttu kër ga la jàngee am njàng hmm. buñ masaan di tàmbali sama wéjur daf daan wax ne amul ree ndax xëy na am na ñoo xam ne buñ masaan tàmbali la yàlla xam doy na te dala daan encouragé ngir nga jàng mën naa cee joxe mel ni misaal am na jëwriñ joo xam ne ba mu fa ñëwee bëgg a mën a jàng mm-hmm. daa ñëw ci bis bu njëkk bi rek sama way jur ne ko jàngal mu ne déet déet mu ne ko déedéet boo ko deful doo mm-hmm. mu daal di tàmbali ab sindiidi di ko daaj ñu koy aw di daaj ñu koy aw dem na ba àgg ci subhaana ji jàpp ne subhaana ji dañ koy daajaale Hmm. bi mu daajee ji nag daaneel të ko <laughs> ña fi nekkoon kenn mënatu tee si bopp ba sëñ boobee dañ ko mujj tudde diw subhaana ba léegi nii na tur ba léegi mooy kon ñun dañ cee juddu hmm. Hmm. yaru ci ndax formation yooyu nga xam ne waajur yi ñu ngi ko daan def ci ndaw ñi ci wàllu xasde yi jamono ji mel na ni xaw naa manqué fii jamono ji te ci ci ci rawatina nag ci wàllum njàng mi ah formation xasida moom dafa mel ni xaw naa manqué waaw manqué na lool daanaka boo gisee coow yu bari yeeg yi xew di xew loolu moo koy indi mm-hmm. ndax ñi ëpp ci ñi ciy tàbbi si dañ leen a waajalul mm-hmm. te liggéey bu toll noonu nag damay wax ne tey yoonu murit ci boppam mm-hmm. euh, yelloon nañu jël engagement wut centre formation boo xam ne xasida yi rekk lañ ko macha allah ndax sëñ Jenne euh, karaamati xattu yat la sëriñ bi wax macha allah tey jii ñun doyoon na sëkk rek ñu wane borom Touba ci mbindam mii ah. ndax euh, tey man lu mu gàtt gàtt am naa junni xasida te hmm. moo ne yow mën nga am junni xasida yu bokkut ak yi ma am benn du ci bokk ñi ñuy diglu mën nga cee jël junni nit ku nekk am junni xasida goo xam du bokk ak la ya am hmm. loolu kii man la goo xam ne hmm. war suta bàyyi noonu reskee war euh, ko defee tey jii waroon nañoo ubbi bunt boo xam ne euh, loola rek ci lay dox ci yoon wi ndax maa ngi fàttaliku bi ñu li ñu faral di wax naan sëriñ bi bind na 7 tonnes 500. Mm. mas naa cee gis benn commentaire benn waay na waaye yéen xanaa da ngeen a xamul ton tonnes 500 li muy peese ci këyit. <laughs> léegi kon loolu waratut a nekk lu ñuy wax. waaye ci lu ñuy liggéey la. Uh-huh. dañ cee war a liggéey. Mm-hmm, mm-hmm. ndax jëlale naa formation bi ci njàngum xasida yi waaye dañ koy tàmbalee sax ci mbind mi mm. tey da nga bis xasida yu bari yoo xam ne boo demee nit ki loxoom day rafet rek mu bind muul tàmbalee wecceeku mm-hmm. da nga cey fekk njuumte yoo xam ne ki ko tiim gis ko mën naa jàpp ne ki bind moo moo binde nii te fekk ne déedéet ki bind la loola nag moo rogalaat ba ñëw ci ñun jàngkat yeeg ñëpp rek maanaam daal dañoo dañ cee bàyyile ko mhm. toog rek di xool te loolu nag liggéey la boo xam ne des cee war a gën a bàyyi xel mhm. ndax njàngoom xasida li ko indi ci yoon wi mooy mhm. mbégteem sëriñ bi mhm. la ci mag ñi doon dakk mhm. ndax dafa bëggoon uh, xasida yi ngir lan salaatu sitta bi madhi sitta suñu diggante moom diggante suñu borom ak yonante bi dallani allahu ala muhammad wa qaadani muhammadun li samadi ci diggante boobu la nekkoon léegi moo tax xasida yi nag ñor ko ñor goo xam ne kiimaanu suñu borom la moom ci boppam daana takku di ko jàngal boppam mag ñi itam képp ku ko ci daan jàng fam lay teg ak bernde yam lay berndeel maanaam jànkatu xasida yi amoon nañ tawféexi sëriñ bi di leen seggal mhm. kafe ci loxo boppam mhm. fell mattum jarambaan taal di leen seggal ah, kafe euh, daanañ ko jàng ba mu soppeeku soppiku yu doy waar mhm. léegi nag loola mag ñëpp a taw tawféex jooju ci sëriñ bi mm-hmm. léegi nag loolaa tax mag ñi daan ci dàkk ak bëggam mm-hmm. di ko euh, jàng am na ci jëmm joo xam ne daana ko jàngal nee na bis bi may ñëw ci moom di jàng si mm-hmm. yéeg naa ne indaale naa ci sama xol loo xam ne dawu ci nekk waaye nee bi ma ñëwee jàng naa jàng-jàng saa su yëngutoo ba ma jàpp na day tijji mu delluwaat ci biir ah, da ci yàgg nee na mu mu ne ma rijion ilal manzil ne leen xubuurul sudurul ahraar xuburul asraar xanaa xamoo leen ne dënni gor ñi ñooy ba ñooy bàmmeeli secret yi ah, léegi nag lu toll noonu nit ki waru cee dugg te waajaluñ ko mhm. bari na ñoo xam ne dañuy xemmeem rek nit ki ni ko ni ko nit ñi def ndax murid dañoo bëgg xasida mhm, mhm. dañuy gis uh, si njenn nekk ci ñu warmaal ko fonk ngir loola di ko màggal ak teral nit ki xemmeem loola moom dugg ci bu ci duggee lool rek lay gis mhm. foofa la am xelam toll mhm. léegi nag ñu mel noonu dañ leen a war a waajal bala ñoo duggee ci liggéey bu mhm. toll noonu incha allah loolu am na solo muy message bu am am solo mu mel ni jot na sëkk tamit euh, ñu bàyyee xel ñi nga xamante si ñoo di ndaw ñi nga xam ni dañoo waaxu wuti xasida yi te xëy na euh, fa ñu war a jaar dëgg-dëgg yoon wa réer na leen amaana ñi yàkkamte nañu ba maanaam dugg ci xasida yi di ci feeñal yeneen yoo xamante si yu bokkul ak mhm. la nga xam ne mooy fu sëriñ bi la mhm. ndax solo naa ci jënd jëmm sànq mu doon ko wax nii euh, ci wàllu xasida yi war may xasida yi mhm. mu wax ni maanaam euh, xasida donte la maanaam yow mi nga xamante si yaa ngi koy jàng da ngaa war a sell d'abord waaye nag waroo koo jàng fenn foo xamante si du barab bu làpp du barab bu sell Euh, waaye jamono ji gis nañ ni fu nekk lañ koy jàngee euh, doy na li ci nekk lépp waaye lu ci mën di am rek warees na cee waxtaane juste nag rawatina yéen ñi nga xam ni suñu borom dogal na bu ngeen ne dama ne ñu bari dana leen déglu kon day baax ñaare bu ñu leen dalalee fi laaj leen ci wàllu war may xasida yi euh, nga wax ko muy bunt bu am solo tey ji euh, ñu gis ni ndaw ñi xëy na ñu bare bari ñi ngi bëgg a jël seen i mag ñi ñi ngi ba ñu bare bari ñu ngi bëgg a jël seen i ndaw seen i doom dugal leen ci daara ji waaye xëy na jafe-jafe daara yeeg ak yu mel noonu euh, tey ji bu fekkoon am na tey looy conseillé parents yi tey ci côté boobu loo leen ci wax waaw ñu ñu xam ne ni ma ko junjee léegi rek ndaw mooy avenir u ëllëg mhm. am na màggal goo xam ne kenn mhm. ci ñi fi ñëwoon ci waa gouvernement bi dafa wax mhm. wax ju am solo te booba moom nekkul sax am murit waaye dafa wax ne bi ma ñëwee gis mbooloo mi li ëpp ci mbooloo mi di ay ndaw dinaa xam ne lii luy dem la léegi nag ndaw ñooñu bu ñu leen waajalut mooy waral lii feeñ tey feeñ te ci ci ci bërëb yooyu lañ leen di waajale ku nekk xam na li li li nit daan daj ci daara mm-hmm. tumuranke gu metti léegi nag bu ñu demee ba jamono neex mm-hmm. nga gis tey daara ju mag ji sëriñ mun Muntaxa tabax mm-hmm. ngir ngir loolu euh, ndax euh, sëriñ bi dafa wax ne wa man nahaakumu ani taallumi xalifatul aynil mujrimi képp ku leen tere ngeen xamlu na ngeen ko jàppe moom jëmmi iblis mu taxaw incha allah waaw jàpp ne kooku mooy xalifa iblis hmm. léegi nag kon foofa fa la ñu war a njëkkee hmm. ci waajal leen waaye bu ñu leen waajalee ci am njàng ba noppi itam hmm. ñu xamal leen lan mooy ak murit ndax murit dafa spécial sëriñ bi bi mu ñëwee fekk na fi ak mbaax waaye dafa xotti baax fekk na fi ñu ñu baax waaye da dafa indi ñu gën dafa indi ñu gën léegi nag loola bu ñu bu ci nit ki waree waree waree màgg. Mhm. war nga koo xamal lim nekk lan la. Mhm. bu ko defee bu ko nit ki xamee rek dana gën a mën a bàyyi xel fi muy doxe ak fi muy teg tànkam. Mhm. te yow mii way juram nag nga jàppale ko ca ndax yow itam faw nga am daluk man koo bàyyi ñu jaarale ko fi ñu ko bëgg a jaarale. ndax li ñu wax léegi ci ndaw ñi itam am na ñenn ci ay way jur ñoo xam ne dañu yàkkamti. Euh, dama ciy profité di nuyu sama waajur wu jigéen di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér. Mhm. dama ko ciy sant lu bari damay wax ne. Euh, tey man maay maay sama xalifa baay. macha tey su fekkoon ni moom am nag yàkkamti teg bëtam ci àddina. Mhm. xëy na fi ma jaar. duma fa man a jaar man naa fee sax wan ginnaaw lii ni ko yenn te ndaw ñiy defee dem ci leneen mm-hmm. léegi nag loolu itam wéy dañ cee am responsabilité macha allah loolu am na solo ñu koy jaajëfal bu baax baax Serigne Fallou Touré moom la ñu dalal tey fii ci seen site bu mag bi di Waarwi TV di jaajëfal bu baax baax Serigne Bassirou Sylla mi nga xam ne moo nekkee ci technique bi di nuyu bu baax baax mboolem soppe yi auditeurs yi nga xam ne mën a ji ñu ñu wéy di ànd ñun ci kanam tuuti rek di ngeen ànd ak ñun ci 78 38 22 78 710 38 22 lay doon ca kanam tuuti incha allah rabbi euh, suñ fàllu Touré ñu ñëwaat ak yow ci beneen laaj rek ñeel li nga xamante si moo di wàllu njàngum xasida yi euh, nga wax ko xay na wàllu xasida yi maanaam suñu borom dafa dogal nga gane jamono rek fekk sa waajur mu nekk ci kon loo xam ne loo doon la yow euh, tey jii ñu bëggoon a xam suñ fàllu ay pro maam jëmmi suñ Fallou kañ la jëkk a jàng ci baas bi ndax mën nañ ko fàttaliku. waaw xam naa duñ mën a xam <laughs> dat bi dëgg-dëgg ah, ndax ni ma ko ni ma ko waxee mm-hmm. dañu ci juddu yaru ci mm-hmm. màgg ci mm-hmm. waaye xam naa nag bi ñuy yëg na nag dañ cee war a liggéeyal sëriñ bi xëy na jamono yooyu jàpp naa ne xëy na jamono yi 2005 xëy na du ko war a 2005 du ko war a sori ndax biñ ci juddoo yaru ci màgg ci itam ni ma ko waxe léegi euh, boo dee diglu histoire yoonu murit di tërbiyewu xasida yi dana dana am yoo xam ne yu lay dikkal la mhm. euh, yëg naa ne lii lu baax la juddu naa ci yaru naa ci màgg naa ci mhm. waaye nag dama euh, doxale noo xam ne sama digganteeg sëriñ bi mhm. bëgg naa xam ba xam nu mu bëgg ma liggéeyale ko ko ci ci yëfi murit bu ndaw bu sob rek mm-hmm. ba ba ba xam ne nag euh, nii laa bëgg nii la bëgg ma liggéeyale ko ci mm-hmm. ma door a sóobu ci mm-hmm. liggéey boobu dëgg-dëgg te loolu jàpp naa ne jamono yi xam naa du sore ak jamono yi 2005 2005 2005 aha euh, ñu gis ni euh, kenn ku ne xam na ni njàngum baas ak njàngum daayira ak yooyu day am différence sëñ Fallou ndax mën nga noo fàttali sa premier programme bi nga xam ne njëkk nga ko am ci ci ci wàllu baas yi xanaa loolu warees na ko mën a kii moom. waaw xam naa ba tey ni ma ko waxee léegi du neex du neex a du neex jàpp. waaw du neex a jàpp waaye xam naa ne. Mhm. bis bi ma ci gën a gën a jàpp mooy. bis boo xam ne sama sëriñ moo koy def. Mhm. muy Baye Galas Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah. macha allah bis boo xam ne at mu jot daf koy def ñu bari miin ko ci yoon wi. Mhm. Eh, ci laa xam naa ne njëkk a fàttalikoo moom ci baas bu mag bu tol noonu. nga toog ca di jàng. di jàng macha allah eh, ñu. ñu am ci itam encouragement bu am solo boo xam ne mën naa ne mhm. ci tawféexi sëriñ bi la mhm. ndax bi ñu toogee di jàng jëmm ji waroon a def waxtaan wi mhm. te booba ndaw lañ door door a tàmbali liggéey bi ay jëmm ji toog war a def waxtaan wi dafa soppeeku ba ñu génne ko baas bi macha allah muy loo xam ne xam naa ne yu mel noonu ca dajee te xëy na booba bayiwuñu woon xel yooyu yëpp xëy na dañu jàpp loolu takk ko fàttaliku ko mm-hmm. waaye xëy na mën am sax mu jiitu mun mu jiitu ko waaye mm-hmm. loolu moom mooy li nga xamante si daal mooy euh, rappel bi dëgg-dëgg li nga xam ne moom moom mënees na koo teg moom nga xam ne moom dëgg-dëgg des na ci mémoire moom mm-hmm. loolu bokk na ci macha allah muy lu am am euh, kon xam naa dañ ñuy euh, bàyyi rek nga daal di ñuy bégalaa tuuti ci benn air bu ko defee ñu ñëw ci wàllu air yi njàng mi royin beeg yooyu bu ko defee door ubbi antenne bi incha allah ndax xam naa waxtaanu tey dañ koy tënk rek comme niñ ko baaxoo àndee ñun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 mudu saanani an kulli di xusraani lillahi shukriya bila kufraani mudu saanani an kulli di xusraani ayatuhu kafatni alaarayni wa saanani an darari naarayni nawaytu shukurahu shukura man sharib min kahsihi ddihaaqi inni muqtarib شغلني الشكر عن الشكاية وليس تنحو جهتي نكاية كرمني الكريم والمكرم وتنتحي لغيري العرمرم رافقني جند العزيز الغالبون وقت جهادي فعداي هاربون ترسي عن الغضب والضلال jundul azizil jalibul xalaali maddu yadi li gayri mugnin agna laysa yura waliya safal magna lam yanxu iblisu wala muaadi li darari wa taaba li maadi ilaya qaada rabbi aluluma wa tayibaati minhu wa taalima zintu bihi lahu makatiba tadur مخجلة به الشموس والبدور ينقاد للعرش وللكرسي خطي برفع الله ذي القدسي دمغ لي الشيطان ربي لسواي وقاد لله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع سلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه السمد كتابتي له أحب من كثير من المنى مذ قاد لي در النصير مده لي الشكر بلا كفران مذ صانني عن جالب الخسران سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin macha allah jërëjëf sëriñ Fallou Touré macha allah ci njàng mu set mu sellal ni ñu koy waxee rek macha allah njàng mi fasax na tege na ci foo xamante si macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te ñu bëggoon a xam sëñ Fallou air bii nga xamante si moom la yëkkati maanaam air bi dëgg-dëgg fu mu jógee. ok ni ma ko junjee léegi rek. sëriñ Njenne euh, bi ñu yëgee na rek lii. war nañ cee liggéeyal sëriñ bi mhm. ñu def itam sunu yëfi murin mhm. tànnloo sëriñ bi ni mu bëgg ñu liggéeyale ko ko ci mhm. ndax dañuy wax ne liggéeyal sëriñ bi baax na waaye nag sëriñ bi liggéeyaloo laa ko gën mm. xëy na ci jamono yooyu ci lañu ñu njàng mi dikkale cosaanul njàng mi itam xëy na fi mu bàyyi koo sax jiitu na sëñ Abdou Lahad Touré mhm. waaye ñun ci sëñ Abdou Lahad Touré lañ ko daboo maanaam fa la fa la cosaan li jóge mhm. ci bi ñuy mhm. bi am na ci yu lay dikkal yoo ne doo xam sax fu muy ñëwee maanaam da lay dikkal ci biirum jàng nga di ko jàng nga xam ne daal air bi moom mi ngi koy door a tàmbali moom sëñ Abdou Lahad Touré nga ci doon roy waaye jamono jii de moom mel na ni dem na ba xaw a am tuuti waaw waaw mi ngoog <laughs> <laughs> ci nekkee li alxuraan di wax ne mm-hmm. na ngeen ragal yàlla bu ko defee suñ borom xamal leen waaye mm-hmm. loolu itam mooy nekkaat ci biir xasida yi mm-hmm. maanaam boo ci nekkee danaa ci am loo xam ne yow ci sa bopp sax doo xam doo xam lu mu lay dikkal la ci biirum biirum njàng nga jàng ko bu ko defee nag xëy na fa ngay jóge ba loola sax ci sam njàng macha allah ki nga xam ne dafa jóg pour roy jàngkat bi tey nga xam ne tey ji bu ma jógoon tey bëgg a roy sëñ Fallou sëñ fàllu Touré euh, tey Euh, ma ñëw pour di roy sëñ Fallou tey loo may digal maanaam ki nga xam ne dafa ñëw pour roy daal ban comportement la war a yore ak diggante ma ki muy roy waaw xam naa loola moom mm-hmm. mooy ne ko dand rek ne ko dand mm-hmm. bàyyi ko xel ci léppam mm-hmm. ma ne ko ci léppam jege ko itam te di ko di ko diglu ndax xëy na boo joxee misaal mi sax ci koy roy ci sëñ Fallou Touré du neex a wax waaye ci mag ñi daanañ gis euh, bu loolu amee nit ki ak ki mu bëgg a mel ni moom ci am njàng di ko ci roy mhm. daanako ko daana ko sax ni ab taalibe di tërbiyaa sëriñam mhm. du ko fekk fenn te warumaalu ko joxu ko hàddiya sàkk ci moom ñaar mhm. loolu itam dana dana tax uh, barkeb njàng moomu teel a wàcc ci jëmmam teel a wàcc ci jëmmam njàngum démb ak njàngum tey sëñ Fallou mu mel ni démb gis nañ ni mag ñi bu masaan dugg ci baase yi seenum njàngin am dañuy takku da ngay gis ku mel ni classe Baye Ablaye Niang Baye Cheikh Fall Khattaba mm. classe Baye Mout Samb yi njàng moomu ak njàngum tey mel ni am na différence boo xamante si am na ci bu baax a baax a baax euh, am na ci bu bu baax baax a baax mm-hmm. euh, ndax pësteefu mag ñi moom leneen la mm-hmm. ndax man sama waajur wax na ma ne ma am na dëkk boo xamante ni wi lañ daan tàmbali ñu génn ci baasu wi ci guddi la ñuy tàmbali nee na dañuy jàng ba 10 ba jigéen ñi nduggi marché <laughs> macha allah kon bëggoon def loolu. <laughs> <laughs> dana bari. macha moo tax ñoom seen <laughs> seen mm-hmm. positif. Mm-hmm. Eh, kiimaanu suñu borom la. Mm-hmm. ñoom moom. li alquran di wax ne wa saabiquuna saabiquuna ulaayika al muqarrabuun waaye loolu mooy li am mag ñi moom leneen lañ ñaareel ba itam mooy eh, positif bi ñu ko doon defee ak sellal gi ak sëriñ bi rek tax nga xam ne daanaka dara rëqu ci loolu itam leneen la moo tax gis nga ko ba nii seenum njàngi du soppi du sàppi du xewi ba nii tey daaj bu ci nit jël jàngaat ko mhm. mën naa cee joxe misaal gis nga raditu anil mawla bi su tarxee jàng bu yàggut mhm. euh, bi ko bàyyi Abdou Khadir Seydi jàng yàgg na waaye gis nga bi mu génnaatee rek mhm, dafa yeesaat ci xoli nit ñi nit ñi am ci mbëggeel goo xam ne kéemaan la maanaam mag ñi moom leneen lañ xanaa ñaan rek sunu borom mu gën a dool dolli seen xewal yi macha allah euh, yàlla ko yàlla def ci barke Cheikhul Khadim mu mel ni sëñ ba Basiru kon xam naa da ñuy dugalal euh, benn clip rek euh, bu ko defee clip bu sëñ Fallou Touré wala bu mu ci doon rek bu ko defee ñu daal di ñëwaat ubbi antenne bi nag daal di ànd ak auditeurs yi allah. Hmm. kuy jullit na nga jug waaj safar màggalug buur gi ko xaadim rasuul di wooteel fi Tuuba kuy jullit na nga jug waaj safar màggalug buur gi ko xaadim rasuul di wooteel yi fi tuuba ki la sàkk li nga am rabbuna moo di rahmaan ku ko dul sant nga cib jaam moo ngi tuuba ki la sàkk li nga am rabbuna moo di rahmaan ku ko dul sant nga cib jaam moo ngi tuuba di safar gut guddiyeeg bëccëg luñ safar xee bu jullit ne ña ngay safar waa wut si tuuba ak ki ñaan wala xeeb der bu ñuul bum tere waaj du tere fii ba siin ña ngay si tuuba sëñ bi noona waral ñun ñu xam ay mayam piir waxi noonam du tee ñam ngëm wuy ji tuuba yàlla kam jaraloon bakkan kanam bam kabar géej ndigalam jar na tayle tuuba yàlla kam jaraloon bakkanam bam kabar géej ndigalam jar na tayle saynoo yoonu tuuba fi lislaam jaraloon wuy ndar dem ba mooya yoo yéeg ci ab fafal tuuba fi lislaam jaraloon wuy ndar dem ba naa mooy ayoo yéeg ci ab fafal naa wàcc tuuba ka ne woon buur kuy mbindeef xojjul ak ku mu déranger juddu baa ñaaw xañ ko tuuba ka ne woon buur yërëmal kuy mbindeef xojjul ak ku mu déranger juddu baa ñaaw tuuba ki ma gis man ku ko gis doo gëlëm bay wërig neen ginu wan yàlla moonu raamloo fii fi Tuubaa im nu féeteeg li mu daj ngir nu raw kum fi doonoo lami wootee di nguur ñu naa mooy nguuru Tuubaa Abdullahi la def muy ndamam bind bam leer lu mu am jox ko yàlla bam jeex gis nga tuuba daaru rahmaan wa quduus ak minan daaru mannaan abdullaahi ak ahad wa qaadir fiiw na tuuba sëñ bi bi mu feeñee ba bis bim nu làqoo ci la sax ba am xaas fii fi tuuba sëñ bi ba mu feeñee ba bis bim nu ci boroomam la sax ba am xaas fii fi Tuuba xaasa tax ba sëriñ Bàmba mi duutu am maas bu ko sàkkal moroom dangay juum ak fi Tuuba man kaana ak la mu làmboo piréem mooy ñun ak moom ni mu def buur ni lañ ko doyloo fii fi Tuuba ñi fi baax fi baax ak fi baax lépp moomoom unu laajoon bakkan danuy ran ba Tuuba gile waay kon bu nu sante safar màggalam gi jile waay kon bu nu sante safar masgalam gi jile waay kon safar masgalam gi lu doo murit piir fi Tuuba màggalay sunu feet ñun murit indépendance fi nu may Bàmba dey fa seen réew mel ne Tuuba ña fi jéngoon suni maam seeni sët tey ña ngay di dikkar baatu yàlla muy riir bu tuuba réew yi dem lépp nooy ngir demam gi jërëjëf weer fi tuuba réew yi tey fu nu dem lépp nooy ngir demam gi jërëjëf Seexu Bàmba sunu weer fi tuuba yàlla la jaajëf ju wér kon ku dib jaam ni la jaajëf fu wareef la waaj leen muy si Tuuba sunu bis moo di la 18 safar màggalug buur sunu bis moo di la 18 safar màggalug buur sunu bis moo di la 18 safar màggalug buur gi ko xaadim rasuul di woote muy si Tuuba sunu mbég moo di la 18 safar màggalug buur sunu yitte di la 18 safar màggalug buur ko xaadim rasuul di wooteel i Tuubaa jërëjëf sëriñ Bassirou la ci li nga xamante si moo di clip bu am solo boobu yi nga xamante si rek euh, moom la doon dugal noonu macha allah euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolem auditeur ak auditrice yi nga xamante si rek jamono ji ñu ngi wéy di ànd ak ñun ci site bu mag bi di Waarwi TV euh, man ngeen a ànd ak ñun jotaay ba jaar ci 78 710 38 22. 78 710 38 22 ngeen di def bu ko defee rek tàbbi si jataay bi incha allah di jaajëfal baax a baax sëriñ Basirou Sylla mi nga xamante si moo nekk ci technique bi euh, sëñ Fallou xam naa euh, ñu ñëwaat rek ci li nga xamante si mu mel ni clip bi yaa ko doon kii. waaw waaw macha allah no jéem. yéen ci doon jéem ànd ak sëñ Basirou <laughs> mu nekk euh, clip bu am solo ndax ndax li nga xam ne moo di wolofal yi da nga kii wala yaa koy bindal sa bopp. waaw lu ci ëpp nag xam naa ñaare yi ci nekk ci vidéo yi yu ci ëpp noo koy noo koy bind yéen a koy bind mm-hmm. xam naa bu fekkee am na ci bu ñu bindul yaakaar naa ci yi ne ci vidéo yi yëpp yaakaar naa benn lay doon boo xam ne eh, jël nañ luñ bind boole ci itam bindum sëñ Moussa Ka mooy wolofalu sëñ Fallou bi doon jàng mooy wolofalu sëñ Fallou bi doon jàng sax dégg mhm. bi ñu bindee fukki way ak ñaar ci sëñ Fallou jël mhm. vidéo boole ko ci macha allah mhm. yow en tant que jànkat ngay ngay yëngu ci wàllu wolofal yi eh, naka ngay def ba maam nooy inspiré woo ci wàllu wolofal yi ndax da lay dikkal nii wala da ngay toog benn instant rek wolofal dikkal la nga taali tàmbali bind ko naka ngay inspiré wu ci wàllu wolofal yi maanaam daal bu amee lu nekk ci xol bi ak xel mi mhm. ñu bëgg koo jàllale ci ñaari ci way lañ koy ci way lañ koy jaare nga xam ne ay message lay doon daal ay message lay doon mais ni daanaka boo ma téeloo woon micro bi nii bëgg wax loo fukki minutes yu àgg mhm. jafe-jafe lay doon ci man macha allah waaye bu fekkee nag am nañ message bu ñu bëgg mu jàll ak lu mu a doon nag mhm. ci ñaare rek ci way lañ koy jaarale aha mhm. ndax ñu déggee ci nii maanaam ah, tey ji en tant que jànkat daal war nga doon koo xamante si waroo ko yemale ci wàllu xas day kese ndax ah, jamono yi dañoo toll ci jamonoy message jamono yi Euh, média si média ci la ñu toll lépp lu mën di doon rek da nga ko war a médiacité pour mu mën a jàll ndax euh, jàngkat bi xëy na léeg dina toll moment yoo xamante si dina gis loo xam ni wax dëgg yàlla lu intérêt taalibe yi lay doon mu war a am fu mu ko jaarale tey ñu gis ni yow nga nekk jàngkat euh, xëy na di yëngu ci wàllu xasida yi waaye di yënguwaale ci wàllu mbind mi ndax doy na secret ci jànkat mu yem rek ci wàllu njàngum xasida yi waaw dëgg li nga wax ndax <laughs> ku yaatal liggéeyu borom tubaa bi rek da nga hmm. ko war di def da nga ko def rawatina nag ñun ñu am taw tawféexi nekk hmm. ñuy jottalil sëriñ bi kàddoom ndax fi mu ne hmm. ni jànkatu xasida saa su toogee di jàng jamono booba mooy porte parole sëriñ bi borom Tuubaa ci boppam nga xam ni saa boo toogee di jàng daal boo toogee di jàng maanaam euh, nekkatul ne yow yaay wax mais sëriñ bi mooy wax yow da ngay jottali looloo tax responsabilité bi jàng xasida garaaw saa soo toogee di wax rek mhm. nekkatul ne yow yaay wax mhm. waaye sëriñ bi mooy wax nga koy jottali mhm. loolu nag euh, ku am tawféex jooju yowit loo ca mën a boole ci sa góor góorlu bopp ngir gën a jottali message bu sëriñ bi ngir gën koo mën a leeral su boobaa jeneen tawféex lay doon yoo xam ne da ci dollee ko ñu gis ni euh, euh, yow comme ni nga ko waxee sànq mu mel ni am na wolofal boo xam ne bi doon jàll sànq bu suñ fàllu bi xam naa doon ci ñëw léegi ci kanam euh, présenté ko auditeurs yi mu ñu gis ni léeg-léeg da nga ci biir wolofal yi da ngay dem ba mu yàgg ngay jëlee ci ñeneen comme ku mel ni sa sa maam Moussa Ka mm-hmm. ndax wolofal yi sëñ Mbaye Sarr yi tamit léeg-léeg di nga ci tànn ci yenn ci ay bayit sëñ Mbaye Jaxate waaw sëñ Mbaye Jaxate waaw sëñ Mbaye waaw moom <laughs> maanaam bu fekkee dañuy toog nii ci baas di jàng lu ci ëpp sax wala fal yooyu la ñuy jàng. wala fal sëñ Bay Jaxate. waaw wala sëñ Musaa Ka wala fal mag ñi. xay na léeg-léeg ñu dem bay tëj rek. Mhm. tëjee luñ. luñ bind wala lu mel noonu waaye bu dee ñaari nag yi ñuy def uh, vidéo li tax ñu ciy gën a faral di jàng li ñu bind. Mhm. mooy xëy na wala fali sëñ Bay Jaxate sëñ Musaa lu ci bari tasaaroo na ñu bari dégg nañ ko. Mhm. xëy na looloo tax ñuy. indi lu yees loo xam ne mhm. danañ ci mën a wax ak ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ tollool jamono uh-huh. waaye bu dee ci programme nii nag moom amuñ ci xaaj ak seen uh-huh. wolofal bu ñu am yëg-yëgu jàng rek dañ koy dañ koy jàng ko jàng mm. macha allah ndax wolofal yi maanaam bind bi nga xam ne yàlla dogal na nga di ko bind nii ndax uh, sëñ bi moo la ci jox ndigal wala yow yaa toog rek inspiré wu xalaat nii war ngaa mën a am say message yoo xam ne da koy lancer sa diggante ñi nga xamante si ñooy ñooy ñooy ñooy ndaw ñi mm. wala ndigal la loo xamante si lu ñu la jox la nga xam ne nga koo téyeel sa bopp moom nga xam ne yëg-yëg boobu nga ci am waaw maanaam mën naa ne hmm. yëg-yëg boobu la ndax man ñaare lu may def wala may bàyyi rek la ma ci doxe mooy tànnloo sëriñ bi bàyyee ko sama bopp waaw maanaam li sëriñ bi di wax ne wala walastu za dafin wala za jël bi maanaam ñu diw ma waaye jëñu ma dama bàyyee sama bopp borom Tuubaa daanaka mën naa ne lu ma lu ma nekk daal taw fee xam la ci ci gàttal ci am na itam nag kàddu yoo xam ne boo ko ci déggee uh-huh. ci kilifa uh-huh. dana la gën a firndeelal ne la nga doon wut ci sëriñ bi démb lii da koy firndeel uh-huh. ndax am na ci xasida koo xam ne maa ngi ko tudde woon ahmaduna ci sëriñ Basiru mii lañ ko enregistré woon incha allah eh, diirub juróom ñaari at lañ yóbbu ahmaduna yi bi ko sëriñ Muntaxa déggee hmm. dafa ne ma sa way wi dafa am fulla te tooñoo kenn son sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa waaw <laughs> léegi nag ku toll ne sëriñ Muntaxa bu la hmm. bu la waxee loolu hmm. da ngay xam ne kon lii am na lum lay dëggalal ca la nga doon làmbatoo ko seet bu fekkoon ne amoo ca yàq euh, wala boobu itam euh, sëriñ Hamsatu diglu na ko ma koy jàng sëriñ Hamsatu moom sëriñ Chouaïbou mm-hmm. ba mu soppeeku génne ci jibaam ñaari junni jox ma ne na ko ñëpp jox addiyee borom Tuubaa léegi nag lu mel noonu da ngay daal di xam ne lii maanaam euh, encouragement la rek di bàyyi ko ci sëriñ sas la daal <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi koy jaajëfal baax sëriñ Fallou Touré ah, mën ngeen a ànd ak ñun jotaay bi jaar ci 78 710 38 22 78 710 38 22 mooy numéro bi ngeen mën a jaar incha allah bi euh, mën a tàbbi si jataay bi di fàttali rek tey jii ñu ngi ànd ak ki nga xamante si rek mooy Serigne Fallou Touré nekk jànkatu xasida waaye comme ni mu koy waxee rek ah mën naa ni euh, jafe na lool ci jànkat yi ñi nga xamante si wax dëgg yàlla dañuy yëngu ci xasida yi waaye nag téyel seen bopp li nga xam ne moo di woy di bindaale seen woy ndax woy yi nga xamante si Serigne Fallou yaa ngi koy bind tey jii ku bëggoon jànkat yi bari na ñoo xamante si dañu am yéene génne ay wolofal ci yenn yu mel ne eh, programme yeeg yooyu noonu ndax màggalu Tuubaa jub si mu mel ni air bii nga xam ne mu nga doon jàng sànq defe naa bu ma juumul ci waajtaayu màggal Touba muy safar bi mu mm-hmm. ci la génne woon ndax tey jii ku ñëwoon tey bëgg nga bindal ko wala nga jox ko ci wolofal yi dana yomb ci moom waaw loolu moom du am benn jafe-jafe ndax ngir sëriñ bi rek moo tax ñu koy def ah. ak yaatal ab euh, liggéeyam mm-hmm. dégg naa ci sax wolofal boo xam ne maanaam ki ko jàng laajuma ko. am ah. damaa toog rek. dégg mu jàng nit ñi dama koy yónnee naan ma diw de sa wolofal bi la jàng sa wolofal bi la jàng. nga xam ne ba fii may waxee yow déggante ci. te jaarul ci yow. déedéet maanaam ba fii may waxee yow déggante ci laa wax. nit da ko dama koy nit ñi ma koy yónnee rek. ne ma diw sa wolofal bi la jàng sa wolofal bi la jàng. am na ci ñoo xam ne tam dañ naan ma bëgg naa wolofal sàngam boo ngay jàngoon ma jox leen ko ñu jàng ko. ba ci bu yàggoon rek mm-hmm. ci jamono yi am na ku ma ko yónnee waaye téewut itam mm-hmm. noo ngi koy bàyyi xel nag ngir gën koo ñoŋal uh-huh. ndax fii jamono toll tey ji mbind yëpp war nañ ko protéger waaye itam war nañ ko mën a def euh, pdf ngir mm-hmm. mu gën a mën a tasaaroo ci ñu koy soxla itam liggéey yooyu itam danañ ko gën a bàyyi xel ba soobee yàlla euh, foofu laa doon waxee sax mu mel ni tey jii nga toog maanaam inspiré wu ndax Euh, bind dafa xaw a jafe te kayit dafa weex nga toog xalaat ci sa xelum bopp bind wolofal boo xamante si bu jubla tegu ci yoon ab jàngkat jóge fële rek ñëw rek daal di koy jàng sans mu prévenir la wala mu tàggu la ci xam nga loolu tamit euh, wax dëgg yàlla doonte la yow sax xëy na doo ci am benn jafe-jafe ndax am nga yéene ñëpp jariñu ci waaye nag loolu tamit dafa doon loo xamante si tamit bokkul ci war may ki nga xam ni moo inspiré wu ba génneel boppam loolu te est que jutul tamit nga jëlaat ci say matuwaay ci yu mel noonu ndax am na benn benn euh, benn jàngkat boo xam ni amoo air bu mu jàng boo xamante si mën naa ne sax wala falub sëñ baara la waaye ka nga xam ne moo ko bind daa dem ba ci biir euh, tey mu mel ni boo demoon ba ci biir nga ni man fàllu ture moom mu génne loola dugal ci turu boppam ka ko bind wax dëgg yàlla am na ci lu ko naqari lool sax lu ko metti lool est-ce que loolu tamit jotul ñu bàyyi xel ci xeet yooyu. waaw maanaam lu lu doy waar xëy na ci ci ci ci biir murit gi rek lañ ko saña ndax xëy na mën ngaa xam ne dara du la ci fekk mhm. waaye loolu nit ki ko jëmmi nit ki ko def mën na ci am jafe-jafe yu yaatu mhm. waaye nag bu dee ci biir murit gi li ma ko waxee léegi kiy bind di bind rek ngir yàlla ak sëriñ bi su mhm. boobaa itam eh, li nga wax am na bëri na ci ñoo xam ne bu àggee fu turu nit nekk ab bindkat dañ koy génne dugal seen tur <laughs> xëy na bu ko nit ki déggee mën naa di bés bés bi mën naa diis ci moom ndax da koy mm-hmm. xaw a naqari ah, ndax boo demee bay jël mbindum nit di ci jariñu mm-hmm. waroo ko iñaane nag ne di ah. di di di wa ko def dëgg yàlla te su boobaa loolu lay xaw a nuru mas naa jee daje genn kilifa goo xam ne daf jàmbat na ma ko jàmbat yu metti mm-hmm. ci jàngkat bu jël ay waayam jàng ko ba noppi génn turam dugal aw turam ñu dajee mu ma koy jàmbat li eh. ma wax ne ma ndax yoroon ni ma kooku ngir bëgg bëgg koo woo ah, ngir loolu mu ko def naqari gum ko naqari mm-hmm. waaye nag ni ma ko waxee léegi rek maanaam bu fekkee ni moom Euh, sëriñ bi rek tax nga koy def mhm. xëy na bees beesu boo ko déggee man nga am xalaatum ne kii kan manoon na cee dégganteeg man wàññiwul dara mhm. waaye itam daanaka du du tax nga topp ko ci lenn mhm. waaye daal lu jar bàyyi xel la may lancer encore une fois appel ci ñi nga xamante si tamit ñoo di jànkatu xas ñu bàyyi xel loolu ndax xalaat dafa xaw a jafe tey doomu aadama nit ku nekk rek li nga xamante ne si moom ci lay yëngu wax dëgg yàlla war nga ko ci suuraale bu baax a baax ndax nga gën a mën a jariñu maanaam euh, nga yëkkati léeg-léeg nga yëkkati addiya daje sëñ Fallou Touré ni ko ah lii kat maa la ko jox addiya ndax sa wolofal bis kat wax dëgg yàlla daanaa ci jàng daanañ ñu ma ci teral lii maa la ko jox addiya loolu yaakaar naa ni day seral xolub ki nga xamante si moo def loolu te nit ki boo seraleeb xolam ci li muy yëngu rek day tax yow loo ci bunt boo ci fëgg day daal di ubbeeku loolu da ciy am solo bu baax a baax kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax di sóoraale loolu